والقلم وما يسر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 asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu anta bi ni'mati rabbika bi majnuun aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi yéen nga xam ne yéen ñuy topp fii ci seen chaîne académie Minane tey jii ñu ñëw fii tey ci talaata ji fi nga xam ne mooy ci kàmb yi xam ngeen ne nag am na lu fi newoon euh, bu ngeen delloo ca ginnaaw muy ndox mi fi nekkoon ak taataay yi waaye meloon euh, melokaan wu kéemaane waaye nag waa kër Cheikh Ibra Fall taxaw taxawaay bo am solo ngir ngir def bëggu sëriñ bi xam ngeen ne comme ni ñu koy waxee waxtu wu nekk rek ne lépp lu Sëriñ Tuubaa bëgg rek maam Cheikh Ibra Fall dana taxaw temm pour def ko tey ñu ñëw fii tey ngir saytu uh, ñi nga xam ne tey ñoo dëkke fii uh, neneen jàkkaarloog jëmmi fii nga xam ne tey fi ndox mi nekkoon kon mbokk yi dañuy ànd ak yéen ñu ànd ak Sëriñ Muntaxa Ba ci caméra bi ak taxawaay bu am solo jërë ngeen jëf mbokk yi lii mooy li nga xam ne tey jërëm nañ leen ko fii ci kàmb yi nga xam ne tey euh, tuddoon na ay kàmb waaye léegi ku gis tu tànk yi ak oto yi nga xam ne tey ñu ngi fiy jaar ak jàll nga xam ne waa kër Cheikh Ibra Fall defat nañ seen manin muy jëf lu ñu rawee ñëpp nag ndax waykat bi day wax ne mbaay ki jël jëli julli juróom jagoo ko tër yoonu tër bi Cheikh Ibra ko mu dellu wax ne it bàmbaay di géej gi Cheikh Ibra di gaal gi ku kum jàlliwut ëllëg malayka dañ ko kon tey waa kër Cheikh Ibrahima Fall waneet nañ seen li nga xam ne tey moom lañ leen bàkkee muy jëfe ndigal ak bàyyi tere loolu nag day taarix ndax keroog ba Cheikh Ibrahima Fall jugee Mbàkke Kajoor tey ba Dakar jëm Mbàcke Kajoor nee na la ma déggoon malayka yi di ma ko wax mooy ay message yoo xam ne Cheikh Ibra Fall da ko war a samp ci kër Sëriñ Tuubaa muy jëf ndigal tere moo tax Cheikh Ibra Fall ne woon keroog ba may dugg biir Mbàcke Kajoor day maa ngi dégg malayka yi naan ku fa njëkk gën bëgg gëm ak jëf kon jëf ji tey waa kër Cheikh Ibra jëf nañ xam ne jëfal nañ ko àdduna waaye jëfal nañ ko jullit tamit ndax damay duma dañ di wax ne Cheikh Ibra Fall lépp lu jëf rek nañ xam ne diina la ko defal ndax Cheikh Ibra eh, ci message rek mooy tey niñ sëkke fii xam nga li jiitu ca biir su suma juum moom suuf lañ jiital ba mu toll nii te bâtiment bii nag taxaw la ko téye ma nga ca suuf muy fondement kon Cheikh Ibrahima diine Cheikh Ibrahima diine ji ñu jàpp moo tax waykat bi wax ne maa Ibra Faal lay dëggi dëggi diine ji ñu jàpp Cheikh Ibra nag kon diine képp lay defal te nag damay wax ne képp koo xam ne yaa ngi liggéeyal jullit yi sak pay mooy ëllëg yomal xiyaam mooy aljana rek ndax nee nañu ëllëg sama borom dana taxaw ne ay na alul xidma yéen ñi daan liggéeyal jullit yi kat ñëw leen tabbi aljana te du ngeen jaar ci benn xisaab kon waa kër Cheikh Ibra Fall la Cheikh Ibra Fall waxoon daa ah doom ñaar yi képp a fi nekk mooy càng gi ak njaam gi jël leen càng gi ngeen jox ko waa kër Sëñ Bàmba te tee njaam maam si yax wax ne doom buñ ca yeggee da ngeen dem ba seen càng gii ci seen njaam gi moo ñu dàqal ak càng kon loolu tey feeñ na ndax waa kër Cheikh Ibra Fall lépp lu Sëriñ Tuubaa bëgg mu taxaw Cheikh Ibra Fall waa kër Cheikh Ibra Fall ñëw ngir taxaw ko ku nekk xam na ne waa kër Cheikh Ibra jàngalewaat nañ jàngale ba am solo ndax ci liggéey mun ta ñàkk ci yoonu murit waaye mun ta ñàkkit ci ab jullit ndax tey fii buñ ne woon dañuy toog rek di xaar ko ko defar yaakaar naa tey nii lay nii lay nekk te nag ku ne xam na ne liggéey bi ba mu tàmbalee ba léegi suma ma liggéey nañ ko ci fukki fan ak ñaar wala benn Mboon ñëpp ay kër lañ yore yor ak njaboot waaye nag Cheikh Ibra Fall dana woon képp ku def bëggu Sëñ Tuubaa Cheikh Ibra Fall de Sëñ Tuubaa dana def sa bëgg kon nañ xam ne Cheikh Ibra waa këram ñi nga xam ne ñoo sumboon tey nekkoon ci waar wi di ko liggéeyal nañ xam ne jullit yi bég nañ ci ñoom euh, murid yi bég nañ ci ñoom di ñaan liggéey bi yàlla na ko sëriñ bi nangu di ñaan bu baax nag Sëñ Muntaxa Basiir sa boroom yàggal ko tam yàgga digal waa kër Cheikh Ibra Fall Simni Fall Moodu Mbend sa borom fanam ba mu yàgga jëfandikoo sëriñ bi mbokk yi ñoo ngi leen di siyaare nag bu baax a baax di leen sant di leen gërëm di siyaare bu baax Muntaxa ba mi nekkoon ci caméra bi ak mbooleem murid yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu wal qalami wa ma yasturuun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 asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bi ni'mati rabbika bi majnun